man lii maa ngi koy def at ba at gps pèse bien mes mots na ñëpp taxaw man maa bokk ci ñi ñuy gën a saaga ci internet man la ñi ñuy gën a xas man la danga maa mës a dégg ma répliquer et pourtant maa ngi ci télé boo xamante ne nii télé boobu mooy télé bi bokk na ci tele bi gën a siiw danga maa mës gis ci internet Vous yoon bo xamanteni ni waxna nit wax ma wax te bobu dama koy regretter suma à part vous ne me voyez pas souvent dañ may waxal lo sax at ba at yow xam nga ci dara Lamine la neex nga talama micro mais top deux ans trois ans pour interview Vous non non mais bi nga ci xar ma nangu Vous ma nangul jamaïcain yi ko nangul ku am na léegi benn kilifa bu mag ci réew mi bu ñëw wàccul otoom ndax presse bi mu gis la tiit xaalis bu bari laa fa ñàkk gum ndax sàcc bu dul raw la jarta ñàkk nelaw fii sama place su liggéeykaay la man damay liggéey moo tax su ma déggee yenn accusation yi damay damay mer guy gi vingt mille francs la ma mës may vingt mille francs yooyu intérêt am la hmm. ma nekk Walfadjri ma mës ta bëre sept million bi muy bëre ak Zos combat ba mako taxawal wol Gaston Mbengue nga laajtu ko maa def tentamar ci wal ba bam taxaw bam taxawé diko hésiter nan hésité ko jël du ma ko jël mako ne demal nga jël Zos. mu dem mok nas jël avance bi wàcc mu wal Walfadjri ne ma am vingt mille francs ngi ni lay wax man mako wax da nga ragal euh, euh, euh rëg maa mako wax tu as peur de lui tu me laisses terminer parce que bam may attaqué waxuloo man <laughs> musuma dégg ma tontonto man du ma moro moom place place papa la ma war a na sama kër lekk këram musuma dem këram lekk. ah mais est-ce que maa ngi ñëw dañ koo séq. Ah. moo tax waruñu koo dugal ci yenn yi sama diggante ak moom lépp nas la. parce que nas moo ma woo nas moo ma attaqué waaye nas dootul ti parce que man xamaluñ ma dara xamaluñ ma góor jigéen xamaluñ ma naan sàngara xamaluñ ma tux yàmba xamaluñ ma sàcc xamaluñ ma fen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 boo taxawee adduna ñëpp di la déglu ngay wax naan su ma waxee amuloo dara loo wax nas keroog ba muy takk jabar man maa ko yorol micro central am fayu ma ñaari salaamaaleykum yaayam war a saar musuma may un franc xaw ma seen kër jamono boobu jamono xam nga jamono non nit sox ndax dafa xew jamono bi may nekk wal faji xam maa xew ci wàllu làmb saa yu mus jël komba guy gi lan dañu dem ba ñëpp ne man moom laay faral sa adduna yëpp dañ na guy gi laa faral yéen ñëpp gis ngeen loolu man jiiñ nañ ma bala Gaye jiiñ nañ ma guy gi waaye guy gi lañ ma gën a jiiñ lu mu mës wax ci adduna ci sama micro la ko waxee bokk naa man ak Bécaye Mbaye ñi ko taal waaye tey bu ma maanaam su ma santatul warul jël tibb bu tàng di ko teg sama ndodd xamul lu tax war a koo def parce que guy gi ci jëmmi boppam ñi koy attaque ñi koy wax pour mu attaqué ma man du ma journaliste bu ñu attaqué sàccu ma fenu ma dama koy pesé wat duma ñaari puis xasuma len nak duma ko demuma dikuma sama tank bi mësta dugg boîte de nuit musuma seex cigarette xaw yamba nu mel xaw ma def lu bon nu mel fi ñu toll nii sax yéen nak ma talel micro bi mi ngi may déranger parce que sama waxtu julli dafa jot yow xam nga li lay wax liggéey daan sama doole la bu fekkee sa vingt mille francs yooyu ñëwal ma tegal la ci ñeneen ñetti zéro muy 2 millions ma jox la ko mais amuloo dara looy waxal ci man da nga ragal rek rek man maa ko wax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 motax fi mu tollu ni bettu xalé la mi ngi ci yoon na gën gor góorgóorlu. kon xoloko ko bëtu promoteur. non dom la ko jappé bu don promoteur la dañuy liggéey après mu paré ñu dem mais ñëmé tul sax di def yenn déclaration yi ci presse bi so xolé génnam ci presse bi wañé ko so xolé ni ma daan communiquer di euh, agresser bayinako parce que man kuy ànd ak man da ngay ànd ak man ci sama jikko.